dal ak jàmm wàllu campagne électorale bi génnu àdduna Ibrahima Boubacar Keïta tamit wàllu kan bi moo gën a fës yéene kaay génn tey jii ni Sud Quotidien ñoom def taxaw seetlu ci coow li nga xam ne moo am ci train express régional kii di Boubacar Ba mi nekkoon facilitateur nekk tamit consultant communication joxe na ci xalaatam nee kat fi toll nii li ay di ñaambat moom moo jëm ci càmbar maanaam wàllu audit su ko defee rek mettre à l'aise ki nga xam ne kat moo war a toppatoo lépp

candidat wu benn Bokk Yaakaar ci Ndakaar Abdoulaye Diouf Sarr moom bëgg-bëggam leen rek la sukkandiku nag ci lébu yi rawatina ñuy dëkk fële ca Yoof Ngor Wakam ak tamit ca Cambérène ngir rek mu mën a gagné élection yi

24 heures moom def taxaw seetlu ci wàllu fët-fët gi neemee ko ci wàllu campagne électorale bi mu ca yëmbal Dagana ak tamit Géejawaay yëpp na fët-fët dafa am ñi nga xam ne ndaw yi nekk ci mouvance présidentielle bi kat la joxoñ baaraamu tuuma yéeni kaay tamit dellusiwaat nañ ci génn àdduna kii Ibrahima Boubacar Keïta Le Soleil di ne loolu kat mu ngi am démb Ibrahima Boubacar Keïta moom dafa jiite Mali ba

ci yoon CEDEAO ak tamit UEMOA ci ab waxtaan woo xam ne seq na ko télévision publique bi Choguel Maïga di fësal ne kat di wax lan moo tax mu bëgg a porter plainte CEDEAO ak UEMOA yóbbu leen nag ci organisation ci institution sous-régionale yi africaine waaye tamit internationale jëm na ci daan bi nga xam ne CEDEAO def ko daan dëkk bi di Mali ci wàllu CAN 2021 Sud Quotidien di fësal ne Sénégal mu waajal bu baax a baax digganteem ak Malawi loolu nag talaata lay doon suñu naataangoo di jàpp ne ginnaaw ba amee match nul bu naan digganteem ak Guinée gaynde Sénégal yi kat fi mu seen xel mu ngi jëm nag ci seen diggante ak Malawi jëm ci troisième match poule B bi war a am nag suba bu 17 jotee fële ci Cameroun fii ci Ndakaaru ginnaaw bi nga xamee ne kat match boobu Sénégal mu ngi waajal amoon bas mi yëpp daal dinañuy wér fi mu na groupe yëpp loolu sit Quotidien moo ko fësal li ni mel tam l'enquête fësal ci xëtam mu njëkk nee na kat xibaaru jógee fële ci Bafoussam moom dal na xel ndaxte kat Aliou Cissé moom am na joram yëpp képp ko feebaroon nag daal dinay wër loolu ab communiqué boo xam ne kat fédération moo ko fësal li ni mel tam libération fësal na ko ci xëtam mu njëkk lañ fa def taxaw seetlu ci wàccaay bi am ci diggante Sénégal ak Malawi match bi war a am nag suba bu 16 jotee lay doon fii ci biir Sénégal gaynde nag amal galop d'entraînement démb ak groupe bu match ak barke Aliou Cissé kat moom li mu def maanaam mu ngi jëm ci wàllu maîtrise du ballon bi stade dafa def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne kat mooy avant-centre gaynde Sénégal yi fukki match kaan ngi nii na avant-centre loolu la mooy laaj bi nga xam ne waa stade ñu ngi koy laaj ki ci mujjee dugal bii ci avant daanaka boo defoon lank dina

La campagne électorale, le décès d'Ibrahim Boubacar Keïta et la CAN sont les principaux sujets développés dans les journaux ce lundi. Controverse autour du projet réel du train express régional, selon Sud Quotidien, le consultant en communication et facilitateur dans le cadre du projet du train express régional Boubacar Ba invite le chef de l'État à commanditer un audit des chantiers du terre. Invité de l'émission Objection, Boubacar Ba, qui a déploré l'absence d'informations précises sur le coût de ce projet, a indiqué que cette enquête permettra à ceux qui ont exécuté ces travaux d'être à l'aise et permettra aussi à la nouvelle société chargée de l'exploitation d'être dans une position de gestion transparente et convaincante. Nous restons avec nos confrères qui s'arrêtent sur la campagne électorale. Dernière ligne droite, c'est le titre maire à Sédhiou Abdoulaye Diop candidat à sa succession dresse un bilan reluisant et promet de faire mieux Wàllu Sénégal lance sa campagne aux Parcelles Assainies bataille de la banlieue Guédiawaye intronise Gakou et Ousmane Sonko les candidats dans la dernière ligne droite c'est le titre qui barre la une du quotidien L'As le candidat de Benno Bokk Yakaar Abdoulaye Diouf Sarr comptent beaucoup sur les électeurs des villages lébou comme Yoff, Ngor, Wakam, Cambérène pour gagner les élections. Caravane de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias s'est rendu dans la commune de Yoff en compagnie du leader du parti Pastef Ousmane Sonko et de Seydina Issa candidat de Yewwi Askan dans la commune. Barthélémy Dias se dit meurtri et totalement abattu d'avoir traversé cette commune où personne n'est capable de lui montrer une seule réalisation de

quitté le pouvoir suite à un coup d'État militaire le août Arrêté avec son premier ministre Boubou Cissé et plusieurs responsables politiques, Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré après. Ibrahim Boubacar Keïta est parti, écrivent nos confrères de Sud Quotidien. Dans le quotidien national Le Soleil, le président Macky a exprimé toute sa tristesse suite au rappel à de l'ancien président malien. Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'État, aussi présenté ses condoléances français portait plainte contre la CEDEAO et l'UMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision nationale, Choguel Maïga a expliqué pourquoi il a porté plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays. Quand 2021, Quotidien s'arrête sur la préparation du match du Sénégal contre le Malawi. Selon nos confrères, après le match nul blanc contre la Guinée, Les Lions du Sénégal ont entamé la préparation pour le dernier match de la poule B face au Malawi mardi à 17h. par des cas de Covid qui ont mis sur la touche les joueurs moteurs de la sélection, l'équipe nationale du Sénégal affiche désormais complet. Le coach Aliou Cissé tient désormais ses joueurs déclarés tous négatifs au Covid. Selon l'enquête, les dernières nouvelles du côté de Bafoussam sont bonnes pour l'équipe nationale du Sénégal. et de tout l'encadrement technique effectué hier sont revenus tous négatifs. Tous les lions présents, à l'exception de Ismaël Sarr, selon Libération, Selon nos confrères du quotidien L'Info, l'équipe nationale du Sénégal qui a récupéré tous ses joueurs qui avaient le Covid s'est entraînée hier. Pour cette séance, Aliou Cissé a fait focus sur la maîtrise du ballon. Dix matchs d'affilée sans marquer, qu'arrive-t-il aux avant-centres des Lions du Sénégal S'interroge nos confrères du quotidien sportif Stade, les numéros 9 des Lions du Sénégal. Les numéros 9 des Lions du Sénégal peinent en Coupe d'Afrique des Nations. En l'Algérie au bord de l'élimination. Selon Stade, championne d'Afrique en titre et invaincue, depuis 41 matchs, l'Algérie a été battue par la Guinée équatoriale 1 à à l'occasion de la deuxième journée de la poule E. Selon Sud Quotidien, les Algériens impressionnants depuis plus de 4 ans sont en de sombrer durant cette 33e canne. Quatre jours après son match nul blanc face à la Sierra Leone, les Algériens ont été battus 1 à 0 par la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale déchire l'Algérie, écrivent